mbir mi jeex na tàkk dogal ba jib na ñëpp doon xaar nag njiitu réew mi di président Macky Sall daal di na koy wax muy daal di tere lépp loo xam ne daa jëm ci ndaje diine yi nga xam ne ñu ngi ko doon séntu ci réewub Sénégal daanaka ci biir weerub mars bi jàpp weerub avril yooyee bokk na ca màggalu Kazu Rajab nga xam ne ni suñu diggante ak moom ay waxtu yu néew ñoom ñoo ca des te waa Touba ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di murit yi fan yi yëpp ñu ngi doon xaar ak a xalaat jàpp ne warees na koo tere ñenn ñi jàpp ni mbir mu ne ma daal tere ko ñàkk dalum xel rek la kon jamono ji njiitu réew mi di fësal ni tere na lépp loo xam ne nii ab ndajeb diine la wala mépp ndaje moo xam nii rek ay nit dañu fay daje loolu lépp tere na ko te loolu lee jàpp nañu ne li nga xam ne moo di màggalu Kazu Rajab dugg na ci biir léegi ki nga xam ne na moom moo di njiitu réew mi di président Macky Sall nag boobu mi ngi ko jël ci ab waxtaan boo xam ne doon na ko waxtaan ak jëwriñ yi file ak fanweer ci ay fan bépp manifestation politique daal dañ ko fi tere li nga xam ne mooy bateau de croisière itam dañ ko fi tere maanaam bateau yi nga xam ni dañ yeb aw as askan ngir ñu daal di jàll ci yeneen dëkk ngir mën a féexal seen xol waaye itam li nga xam ne nii moom moo jëm ci naka la ñuy fexee bëgg na dooleel li nga xam ne moom moo di contrôle yi ak euh, tëj yenn ci suñu ay frontières suñu diggante yi nga xam ne nii jàpp nañu ne jàngoro ji dafa gën a law loolu li bokk na ci tere bi nga xam ne nii njiitu réew mi daf koo jël waaye itam bokk na ci li nga xam ne nii fësal na ko mu disposition boo xam ne nii armée bi maanaam ñi nga xam ne ñoo yor suñu wàllu kaaraange daañu jël ay unité de soins mobile yoo xam ne nii bu Sénégal maanaam ay bërëbu fajukaay yoo xam ne dañu koy mën di déplacer ci yenn gox-goxaan waaye itam def ko fa lu ci lu jege ci ñetti ci ay semaine li nga xam ne moo moom moo jëm ci défilé 4 avril bi ah, ci place bi nga xam ne fa lañ ko ko doon defee daañu ko dakkal atum ren jilee li nga xam ne moom moo défilé boobule prise d'arme rek lay doon ñu daal di koy amale fi nga xam ne moom moo di ca pale ba kon mbir mi ni mel jàpp nañu ne xibaar xibaar la boo xam ne ni ñenn ci askan wi doon nañu ko xaar rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba teewul nag jëwriñ ji nga xam ne moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum wér gi yaram di fësal ne yooyu lee tere rek euh, njiitu réew mi defu ko ngir banneexu bàkkanam waaye itam da koo def ngir aar askan wi nga xam ne ni moo leen bokk jiitee